jërëjëf sëñ Ablaye bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yafqahu xawli sëriñ abo maa ngi lay jot li nuyoo yi gën a sell nuyoo yi gën a tedd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 taalibeeb Serigne Saliou